ci ak nangam nangam moom mën a tax sénégalais yi deltu ginnaaw ci lii moom jeexal na dafa war a dem demin wu rafet donte ñaaw na ba noppi comme ni ñu koy waxee waaye as tuut li ko ci dese na libérer les otages politiques na libérer les otages politiques na désarmer tous ces nervis là ñu jàpp leen éliminer leen ci euh, maanaam hors d'état de nuire yóbbu leen ci moo xam dañ leen di tëj prison moo xam lan la ñuy def parce que il faut ñu ubbi ay enquête doonte yàgg nañ annoncé ay enquête mais il faut ñoom ñu ubbi ay enquête parce que ñii dee ñi seen dee du du du nil bu ñu ko deful tamit dès mars 2021 nous allons le 2024 nous allons le faire incha allah parce que il faut ñu rendre leen justice parce que c'est des martyrs ils se son battus pour leur pays pour leur patrie lan lañ leen fayee dóor bal mu daanu wala euh, torturé ba nga faatu et cetera donc foofu moom na ko def bu ngeen seetloo nag ba ma commencé wax ba léegi ñëwaguma ci ki nga xamante ne nii daanaka lépp luy violence ci Sénégal rek bu ñu teg nit rek boo ko boole woon yëpp moom lañ ko teg benn nit mii le président Ousmane Sonko ñu bëri dañuy interpellé di ñu laaj anamu mu mu ngi ci jàmm et cetera lu tax bu ngeen wax lu tax nangam nekkul ci jàmm parce que prison la nekk lan ngeen bëgg ñu wax tout le Sénégal sait ba le président Ousmane Sonko mu ngi prison da ngeen bëgg a xam fu mu nekk mu ngi prison bu bees bi ñuy tabax cité kër góor gi parce que 2016 ba léegi mooy nit bi ñu gën a xoñañal ci Sénégal mooy nit ñu ne dee dinañ ko toroxal ndax président Ousmane Sonko bu dul woon mayu yàlla ak gëm yàlla te wóolu ko waaye ak njàmbarteem kon heure bi faatu na bu yàgg psychologiquement dee na bu yàgg parce que liñ ko teg ñi teg ko doomu aadama mu wéy di ànd ak sagoom di ànd ak njàmbarteem di ànd ak yërmandeem ah man de mënuma ko ñu dàq la rek dara gënu ko nga jàng ci réew mi màggee fi servir sa état plus de quinze ans zéro faute ñu xëy bind signé ne la yow ust loolu rek dara gënu ko nekk violence je ne parle même pas que mu ami soxna ami doom bu ñu xëyee ne salafiste la wahhabite la terroriste la rebelle la loolu yépp dara jàllul ñu xëy léegi ku jóg ci ñoom daw dem ca télé ya nangam la koy defee violeur la nu mu gën a ñaawee nag xa xalaatuñ sa xale yi seetaan di ko teg ci pàppaay jàmbur ci doomi jàmbur ci borom këru jàmbur loo xam ne boo ko xalaatoon buñ ko tegoon ci sa wéjur ndax dina la neex rek boo ciy wax di nga xam li ngay wax amul lu ñu tegul président Ousmane Sonko tout ce que je dis là du lu may wax lu ma loo xamante ne nii dama koo sos dama koo inventé dama koo fent lu ñëpp teg seen bët la actuellement ñëpp noppi nañu parce que xam nañu ne lañ ko doon waxal dara amul ñoom ñëpp la ci ëpp boo déggee seen discours ña ngay jéem a léegi di viser parti bi waxuma la gàcce parce que ñoom gàcce du leen du leen laal déedéet mais dañoo amatut lu ñu wax parce que ñoom seen bopp ñoo réer ci si kàcc c'est ça la vérité leneen li ci am mooy la violence physique parce que bu yemoon rek ci violence boobu ñuy jàmm mais Pastef les patriotes dafa ñëw ci langue politique yi ne moom dafa indi benn programme bu bees benn vision bu bees nii la gisee Sénégal yaa xëyti ne ko ñun gisee wuñ ñi Sénégal nii lañ ko gisee après ñu bàyyi sénégalais yi tànn mais déedéet yow ni nga gisee Sénégal dafa baax lool askan waa ngi jublu ci yow te ñun loolu arrangé ñu ñun waa système bi donc faw ñu xeex la faaw ñu dàq la faaw ñu tere tere de terroriste ragal loola ragal loo askan wi faaw ñu def la rebelle faaw faaw léegi nag yooyu yëpp sottiwul faaw ñu faagaagal la physiquement suñu siège fii lañ ko attaqué ak ay jaasi kayaase ko xale ya fa nekkoon daw ñu déposé plainte France daal di xëddët plus de sept plaintes de Sonko et de Pastef ñu ngi ci table justice bi waa justice boobu justice bu tëddee njaaxaanaay la te fi mu ne mbóot bu jóg porte loolu mooy justice Bassirou Diomaye Faye wax ko ñu ne ko da ngay dem tëddi kaso loolu xam nga ne du wéy te ñoom ñi koy def bu ñu yaakaaree dañ ci mucc dañuy nax seen bopp jarul di daw di wuti ay kaaraange jarul di nettoyer euh, seen photo yi nekk ci réseaux sociaux yi pour bañ ñu xam ko lépp la ñu xam lépp la ñu am ndax nag lu tax ñu naan Pastef lépp am information parce que Pastef mooy Sénégal état d'esprit la ku ne fa nga nekk da nga gëm ne da nga war a participer ci xeex bi à ta moo tax bu ñu naan dañuy wër kii informe Pastef il faut que fasse le tour des 552 communes du Sénégal et de toute l'administration de toutes les c'est-à-dire que xamante ne ci réew mi mën nañ fa dem parce que fu nekk la information mën a jóge parce que kenn d'accord ci ñuy doxe même pas zéro virgule zéro un pour cent bëgg a téye réew mi amee ñëpp ne li ngeen di def kenn du ko fi waxe mbaamaray violence yooyu ñu teg ray suñu militante viole ñu ne viol et meurtre soxna Mariama Sagna juróomi at moo ne procès bii da nga xam ne viol imaginaire la dañ ko taxañ juróomi at Mariama Sagna ña ngay xaar ay jiir moom ñi ñi xaar ba léegi je ne parle pas des attaques yi nga xam ne biñ duggee Fatick biñ duggee Fouta ci campagne bi mais je ne parle pas des attaques physiques yi nga xam ne nag ci kaw président Ousmane Sonko lañ koy ay vitram léegi ils se le malin plaisir saa yu ñu génnee cortège ñu viser lu mu juróom ba juróom oto toj seen pare-brise comme ça waaye désacraliser institution yi ñoom ñoo nekk di ko def te koo wax ñu naan dañ ko jàpp parce que dafa attaque institution yow bu fekkente ne nos corps d'élite ni leen wegee woon ñoom ñooy dem jëli président Ousmane Sonko laataa ñuy yegg si ñu gis photo yi président Ousmane Sonko ci biir fourgonnette bi ñu koy jox seen ay page Facebook yoo xam ne ñoom ñoo ànd niñ àndee woon bokk Adji Sarr lañ àndee bokk Anita di ko teg mu mu koy génne di génne ay documents d'administration ay données personnelles état di ko parrainer c'est grave ce qui se passe dans ce pays cest à dañoo yegg ci benn niveau boo xamante ne ni kenn mënatu koo qualifier ba pare ne kenn du ko wax dañ koy wax de ala kulli dañ koy wax ak lu ci mën di xew parce que président Ousmane Sonko moom liñ koy teg moom moom yàlla may na ko ay épaule mën na ko tegu mais projet bi Sonko moomu ko El li moom ko keneen moomu ko projet wu Sénégal la le projet pour un Sénégal nouveau pour un Sénégal juste pour un Sénégal boo xam ne ni ñëpp bokk ñëpp jot ko pour un Sénégal développé loolu askan wi ñoo ko jëlal seen bopp moo tax dañuy sonal seen bopp rek koo xam ne yow saa yoo ko waajee jàpp waxuma jàpp rek waaja jàpp rek dëkk bi tàkk léegi nag ñu ne comme boo ko jàppee dëkk bi tàkk sénégalais yi neex nañoo ñoo nax duñ ko jàpp waaye dañ koy tëj fa mu nekk parce que nit nga ne dafa def délit nga jàpp ko indi ko biir këram waaye barricade këram ne du génn kenn du génn kenn du dugg ñun gëj nañ koo gis mënuma laa wax Sonko ci diggante bi ndax dafa xees dafa ñuul dafa gàtt dafa nangam parce que peut-être waa waa waa Casamance waa Fulaat ñooñu ko mujjee gis ndax nanguñu ñu dugg mais violation bi dafa yegg ba ci avocat mais avocat moom bu duggul kan kan mooy dugg Ciré Clédor Ly neuf fois ñu refusé ko refusé ko mu dugg moo tax ma ne leen kuy laaj président Ousmane Sonko mu nga prison ku ko bëgg a xam nga nooy def pour libérer ko mais il est en prison prison si cité Kër Góor gi saa yu ngeen demee gis ne prison boobu moom lañ gën a garder ci prison Sénégal le président Sonko est en prison pour votre information à nous nag de de savoir ndax dañ koy bàyyi noonu ñu tëj ko ba deux mille vingt quatre wala dañ naan déet lii c'est illégal dañ koy xeex. comme ni ñu ko yoon maye alors yii ñu doon wax yëpp ak yi ñu wane yëpp c'est parce que ñoom dañoo nekk di wax ci ay wax yi way Pastef parce que ñoom dañuy contradictoire tantôt dañ naan dafa am ay forces occultes wala dafa am ay étrangers yu dugg tantôt ñu ne Pastef la mais bu buñ ne Pastef la boobaa dañ naan Pastef doole parce que nit ñi génn dañoo bëri donc xamuñu lu ñuy wax mais léeg-léeg ñuy wax sërxal naan mouvement insurrectionnel mouvement yoon yónni seen quelque guñaafee ñi dem naan Pastef dañ ko war a dissoudre Pastef ci kay dissoudre way juróom way juru kooku juddoogul boobu booy boo ñu xam ko parce que pour nga dissoudre ko foog nga faagaagal la ëpp ci sénégalais yi parce que Pastef dañ ko def fii ak fii donc mënuñ koo dissoudre dañu sonal seen bopp booy boo ñu noppalu alors ak lu ma di xew comme ni ko waxee le président Ousmane Sonko yàgg naa ko wax ñu bëri si ñun yàgg nañ ko wax amut lu koy teree doon candidat ci mim réew bu dee élection am na xaw ma nag bu élection amul naka la ñuy fexee nag ñoom ak seen justice ñun lijjanti wuñ ko l' essentiel il sera candidat parce que man du ma dugg ci ay procès bi non normal na normal dañuy def appel dañuy pourvoi et cetera seen justice nañ ko rëbëjee ñoom ba ciy def lu ñu bëgg a def noonu lañ koy defar lañ lañ ca yàqoon noonu lañ koy rëbëjee waat ba defaraat ko mais président Sonko sera candidat ça c' est clair c' notre unique et seul candidat en 2024 incha allah fa may daanelee nag mooy xëy na tiitaangee tax ñu bëri ci ñoom di jóg di wax di waxee nenn ni parce que c' est vrai déclenché nañu ay procédures avec euh, les juridictions internationales comme yaakaaruñu suñu yoonum réew parce que lii mënul wéy sanction day am ñu bëri si ñoom des na tuuti duñ génnati réew mi de mbaa bu ñu génnee ñu ne leen ñëpp moo tax ñiy tëb di waxloo ñenn ñi nañ génn assumer ñoom wax parce que xam nañ ñi ñu visé te avocat yaa ngi ci liggéey bu baax a baax loolu wàllum yoon la duma ci sori